<laughs> naka nga tudd. Ah, xanaa xanaa bonheur rek kontaan tey si Lions yi di ñaan yàlla beneen yoon mu doon ndam li ñu qualifié dem dem demi finale mu jël coupe bi indi ko fii Sénégal Sénégal toj dem kanam. kon daal tey Lions yi zéro faute. zéro faute. na deux bi incha allah match bi lépp jàmm waaw te moom kontaan waaw. kontaan nañ daal kontaan nañ loolu la wax léegi nañ bàyyi li ci mu ñëw ñu xool ah bon jom rek terrain bi moom jom kese lañ ci soxla soxla wuñ ci des na des na c'est pas parce que dañoo am victoire rek que dañoo war a yuuxee tout ça moi je vois ni des na xaw ma dara ci match nag mais je trouve que des na victoire bi moom dañ ko mérité dañ ko mérité kontaan nañ trop si victoire bi di leen na ñaanal nag prochain match ñu gën a def effort pour gagner. bëgg naa trop parce que nit ñi dañ leen doon xaar feneen ñu ñëw bett ñu 3 bi à 0 moom. mooy loolu dañu kontaan juste di leen ñaanal. ma ñàkkee nii rek xam ne donc c' est je veux man daal équipe lii xam boo mënee équipe bul ko yërëm ko bàcc ba mu Sénégal dañoo nekk équipe boo xamante ni waruñ di jàkkaarloog ces gens d' équipe là di leen ay 1-0 man gëwuma loolu man 1-0 défaite laa ko jàppee mais je pense que qu'on doit plus que 3 même man je s' attendais ou bien 6 mais quand même c' bien quand même c' est Cissé li mu waroon def da ko def bu yàgg depuis match bi passé la waroon def équipe effectif bi la ñu soxla woon match contre Algérie. waaw kontaan quoi parce que ñun li ñu supporté dañu met dañu lii rek la ñu mën a defal pour ñu noyyi waat parce que xaar bi dafa yàgg ak chaque fois rek suñu yeewoo di ko gën a yaakaar mais ba léegi man dama gëm ne incha day ñëw mais Aliou Cissé moom day yéex def changement. war na mën a may Mbaye Diagne sansam ak Pape Abdou Cissé waaw di ñaan nag bu leen seen match incha na Sénégal dóor 4-0 damaa kontaan ba mënu maa wax. match bi neex rek barke yàlla. Sadio Mané dugal na bii raté dugal na loolu rek ñor na. ballon d'or bi lañu soxla ballon dugal na ñaari Sadio tey ñaari. incha allah ñuy xaar si kanam lépp dina baax ndam rek dem kanam Sénégal ci kaw ci kanam bu laak fayda dem ba jeex incha dina ñëw non wane nañ ko. barke yàlla ñu ale Casa la ñu Casa rek moo ñu ñor équipe yëpp moo ñu ñor mais moo ñu tax a jóg incha allah ça ira bonne continuation. ñu ngi bien vrai que Sadio xawoon na saraxe affaire yi mais instant bi moom mu ngi ci mu ngi ci à fond et ñu ngi yàlla ndam li xam am ndam lu mag daal benn la ñu ñëw fini pour seetaan and Sadio Mané let him do the great work and we love him so much. <laughs>